maa ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq nuyu ku ci nekk ci jotaay bi rek maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm it ci taxawaay bi ku ci nekk ci ñun am ci lii nga xamante ne xew-xew bi am tey nag sama wax ji du ci bari euh, suñu xarit suñu mag suñu naataango monsieur le ministre des sport moom moo ñëw jottale njaali président de la république njaalam d'abord ak njaali président de la république moom ñu am lu bari loo xamante ne dañ ko bokk lu baree bare bare bare bare bare euh, puisque nag ñëpp xam nañ ne déplacé wu ñëw fii moom yaakaar naa ne moom bokk na ci ñi ko ñi ko mën ñi mën tax ma déplacé wu muy ñëw ma déplacé wu ñëw teeru si ko puisque nag suñu diggante la ñun ñaar puisque xam naa fi ko président de la république teg xam naa it fulla ak fayda

mais yow nga déplacé wu ñëwal sa bopp hmm. loolu day firndeel ne yow comprendre nga liñ la liñ la dénk xam nga li mu doon te it taxawu nga it président de la république fi nga ko war a taxawoo ma bokk ak yow loolu kon maa ngi lay sant bu baax ci turi délégation bi nga xamante ne ñoo ñëw fii yëpp accueillir la hmm. xamal ne nag fii am nga fi it ay soppe yu bëree bëri hmm. yoo xamante ne ñu ngi fi di la bége ñun ñii nekk ci ñun nekk sunuy rakk nekk suñuy mbokk nekk suñuy dëkkandoo waaye tamit tàgguñu ne dañoo bëgg a ànd ak sunu grand frère Matar Ba jàppale ko ñu kontaan ci bëgg ci nag amul ci lenn loo xamante ne rek dinañu ci dinañu ci indil leneen kon monsieur ministre ñoo ngi lay dalal ci jàmm di la sant di la gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi di delluwaat jaale mbokk yëpp jaale famille bi jaale dëkkandoo yi jaale ñëpp ñi nga xamante ne seqi nañ seen tànk ñëw ba fii di présenter des condoléances